bu ñu ñëwee fii di def le tour des bureaux de vote pour essayer sécuriser vote bi parce que vote bi moom ku nekk xam na fa mu féete waaw lu lu leer naññi la ci bëtu askan wi yëpp lu leer naññi la ci bëtu sénégalais yi en tout cas daal ñun ñu ngi ci ginnaaw sëñ Assane ànd ak moom wax dëgg yàlla ñu sillonné bureau de vote yi pour essayer sécuriser vote bi parce que loolu rek moo ci des accompagner ñu terminer liggéey bi. Euh, waaw déroulement bi ça derul déroule euh, comme niñ ko niñ ko niñ ko niñ ko bëggee. parce que am na yenn sollicitation mooy vote yi xaw nañoo yeex mais am nañ yaakaar ne d'ici ci kanam gars yi dinañ gën a bàyyi affaire yi mu flexible nit ñi mën a ñëw exprimer seen seen seen seen droit de vote. bi ñu fi gis léegi mooy euh, bureau de vote bi ñu ñëwoon di ko xool ci kaw mu am lenteur ci par rapport ak procédure de vote bi am yeexital mais yeexital boobu nag loolu laa doon wax léegi tout ci samay propos ne yeexintal boobu ñu ngi interpellé ñi nga xam ne nii le président du bureau vote mu mu jël ci ay matukaay ba nga xam ne nii disi dix-huit wax dëgg yàlla ñëpp mën a exprimer wu seen seen seen de vote parce que loolu devoir seen devoir la défiance yi bari na parfaitement bari na ci centre de vote yëpp yi nekk ci biir département bi amu ci benn centre de vote boo xamante ne bii di nga fa dem fekkoo ay nit yoo xamante ne bii ay centaine de nit yoo xamante ne bii dañu jël seen euh, lieu de vote transféré leen ci yeneen centre mais bu ñu leen transféré ci yeneen centre informé wu ñu leen wax leen yéen doo leen ci sunu yaay yi ñu ci ëpp ñu ngi leen di alerté di leen wax ne bu ngeen demee ci ab centre de vote ñu ne leen bureau sangam ngeen di voté ngeen dem ba foofu gis leen seen tur ci biir fichier bi ci bi da ngeen di dem xool ko ci ñi nga xamante ne bi ñoo yor wër ndomba gaa yaa ngi fépp ci bunt centre yi ñu xoolal leen li nga xamante ne bi mooy seen sen seen seen seen seen lieu de ngeen dem ba foofu te bu leen tayal lii yëpp bon dañ ko def pour décourager loo nit ñi ñu bañ a voter mais am nañ ay kilifa yu mat ñëpp a ngi ci terrain bi Serigne Assane Mbacké ànd ak waa kër Ablaye Sylla ak ñëpp ñu ngi ci kaw liggéey bi liñ leen di informer rek mooy bu leen tàyyi tant liggéey bi mu ngi fi dem leen liggéey ko këyit bu weex tàll lañ tàllal sénégalais yëpp pour kenn ku nekk war cee bind lu jëm juróomi at ak même bu ñu la nee da ngay voté ba Kidira boo ko mënee tey na nga jaayante ba dem voté ji képp ku mu mën a doon nga yor sa carte ñu ne la waroo voté fii xamal ne dañ laa transféré te informé wu ñu la